94 Walf Sénégal dellu si di leen siyaar di siyaare mboolem képp koo xam yaa ngi topp Fall 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yi nga xam dañ leen koy defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew jaajëfal leen siyaar nañ leen way leen di topp Fall 94 Walf Sénégal voilà xam naa ne direct bi ñu def ci ngoon nag bëggoon ngeen dugg ci ligne bi xam nga fii courant bi dafa coupé woon en plus tamit euh, euh, taw bi voilà euh, direct bi mujj xam nga ñu mujj ko dagg moo tax mujj ñu bàyyi ligne bi mu dem mu continuer pour ni ñi mën a woote wax sa xalaat ak ci ajo yooyu day waa xam ne daan ko programme waat incha allah beneen yoon ñu ngi ciy tuub di jégalu bu baax a baax ndax xam nga boo annoncé dara moom gars yi war a si xam nga dugg si woon gisuñu xam nga dañuy jàpp ne rek voilà mu ngi noonu kan noonu la voilà Ousmane Sonko voilà danañ ko bàyyi voilà ñi naan duñ ko bàyyi voilà dañ ko war a bàyyi waaw nañ ko bàyyi parce que mooy jàmmi réew mi mooy jàmmi Sénégal Sénégal féex nit ñi ànd ak dal nit ñi àndaat ak seen conscience mbir mi mën a dellu siwaat ndax fi ne kat Sénégalais yi man xàmmeetuma leen kat ndax da ngay gis maanaam sénégalais yi loo mësul daawul gis wala daawul dégg yaa ngi koy dégg fi toll jamono yi ñu toll nii surtout nag boo duggee ci monde internet bi heure boo duggee ci réseaux sociaux yi maanaam di xool di jiyaax di xool information yi da dem ba maanaam sax da nga naan man est-ce que information lay déglu wala maanaam ñuy wax lu leen neex parce que tamit internet bi wax dëgg yàlla dafa pëccoxoo boo fa duggee daanaka la nga bëgg a dégg voilà doo ko dégg la nga bëggut a dégg rek ngay dégg tam munoo faa ñàkk bañ a euh, dugg ndax monde bee fi toll adduna bee fi toll jamono fi toll voilà kon nag wax dëgg yàlla doy na daal voilà si loolu da ngay gis ni sax maanaam tey ji xoolal tey lee am ni seer dëkkandoo yi nga xam ne maanaam mbir mi mënoon naa nekk loo xam ne lu ñuy maslaa la ñu réglé ko ci loo xam ne maanaam paa ñuy génn ndax fi mu toll vingt et unième siècle deux mille vingt-trois yaakaar naa ne guerre moom war naa jeex ci àdduna bi man sama xalaat bu gàtt la de voilà waaye nag kenn ku nekk ak ni ngay xalaate mais guerre war naa jeex surtout nag ñun Afrique de l'Ouest ñun Afrique de l'Ouest dañoo war a taxaw Afrique dañoo war a taxaw nag défendre seen i intérêt défendre seen lépp défendre seen réew yi seen doomi réew yi parce que tamit mbir mi foofu la toll occidentaux yee dañoo défendre seen seeni seen i seen i bañ na ko ba gis nga ko tey nit ñu ñuul ñaa ngi ni daj lu nekk pour dem dugg fa voilà parce que ñoom dañu am fulla am fayda voilà voilà ñu défendre seen lépp ba tey boo fay dem visa nga fay duggee boo fa demee ñu lay contrôler nga ci aju pourtant mën na am Afrique ndax Afrique lépp a ngi fi mais loolu dafay fekk mu dépendre ñun ñu way deng am fulla ak fayda comme ñëpp